jërë ngeen jëf euh, internetu Dakar Actu ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam ñu am mbégte ak bànneex euh, di am benn entretien exclusif ak euh, jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi di maître Omar Youm di maire Thiadiaye monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. ñu le ministre gis nañu ne jël ngeen ay tàbbite fu ndogal bàyyiwaat yoon yi gannaaw ba ngeen ko téye lu yàgg yàgg est-ce que mën nga ci dellu si tuuti. Ah, d' accord euh, xam nga euh, feebar bu euh, metti bu gaaw a wàlle moo dugg si ci àddina ñëw Sénégal depuis mars 2020 andi fii nag xeex boo xam ne président de la république moo ci joxe ay tegtal ànd ci ak gouvernement bi particulièrement avec ministre de la santé pour ñu indi ay saafara ci xeex bi ministre de la santé nag dafa am aussi ay kàngam yu muy àndal kàngam yoyu ñu ngi nekk ci comité national de gestion des épidémies xam ne ay experts yu bari ñoo ci nekk nekk ci ay doomu Sénégal ñu gunge ci xeex bi xeex bi nag départ bi euh, plan bi ñu amoon c'est un plan graduel maanaam plan la boo xam ne en fonction maladie bi ni mu mel ak ni ñu koy xamee parce que lu bees la lu ñëw kenn xamu ko donc noonu la ñuy adapté plan bi ci ci feebar bi pour mën ko xeex euh, mesures yi njëkk a jël après état d'urgence bi mesure la ci transport terrestre parce que ñëpp dañu jàpp ne transport ni muy doxee ci Sénégal d'abord dina mën a lawal feebar bi parce que feebar bi amul tànk feebar bi amul ay laaf feebar bi ay nit ñoo koy porté di déplacé wu donc déplacement yooyu lu ñu gën a bëri euh, feebar bi boo moytu dina gën a law te xam nañ transport ni mu bindoo ci Sénégal bu ñu jëluloon matuwaay rek mën na indi ay jafe-jafe moo tax les mesures fortes yi ñu jëloon au départ mesure pour endiguer feebar bi maanaam feebar bi bañ law te wax dëgg bu ñu jëlee population Sénégal 16 millions de Sénégalais nga jël population Dakar million millions 700 mille ah nga gis ne tey lu mu bari bari bari dépassé wul 3 mille alors que dëkk yeneen yi nga xam ne feebar bi ñëw na fi dañoo yéex a jël mesure forte yooyu ba nga xam ne feebar bi song na leen song seen population ba seen euh, infrastructure hospitalière yi euh, kii moo tax 3 mois yooyu ñu jël xeex feebar bi ak mesure yu fort indi na jeexital nag ci. Euh, tolluwaayu feebar bi ci Sénégal moo tax euh, mesures yooyu dañu ci gërëm président de la République mais aussi euh, gërëm ci gouvernement bi yëpp ci ni ñu àndee ministre de l'intérieur ak ni ma àndee ministre sunu ministère pour mun a def liggéey boobu. ñu def évaluation nag après trois mois gis ne c'est vrai am na mesures yoo xam ne war nañ ko mën a yolomal maanaam dem ci jàkka yi di julli bu ñu war nañ ko mën a yolomal dem ci marché yi war nañ ko mën a yolomal. Euh, dem beeg dikk bi aussi war nañ ko mën a yolomal ci kaw nag ñu laltaaye ko nag euh, mesure yoo xam ne mesure yi yi yi accompagner déplacement yi la moo tax euh, bi président defee message am la 11 mai wane jaar-jaar yi wane orientation yi ñun ci lañu ñu commencé aussi di liggéey ci loolu ñun ak ministère de l'intérieur pour que loolu ñu bëgg mu mën a mu mën a jàppandal donc loolu daal la ñuy def moo tax nag tey ñu toll ci woyofal li nga xam ne mooy transport interurbain nga xam dañ ko tëjoon euh, depuis lors dawul ñu mën ko nag jéem a xool nu ñu koy nu ñu koy woyofale ba transport interurbain ñu ubbi ko teg ko nag ci condition yoo xam ne nii condition bu ñu ko sàmmante ak moom wax dëgg yàlla dinañ ci am liñ ci bëgg. Euh, ci reprise boobu am na ay tàbbite fu ndogal yoo leen jël euh, est-ce que mën nga si dellusi waa d'abord reprise bi. li ñu njëkk a def mooy dañuy xool les points de vulnérabilité du transport point bi ci njëkk mooy transport interurbain léeg-léeg dafa bari foo xam ne ku ne ku nekk fu la neex nga jëlee fa oto duggee fa dem wacc ci benn dëkk te loolu nag euh, bu dee dafay continuer ci condition yi ñu nekk feebar bi dina law moo tax ñu ne léegi képp kuy voyager dëkk ak dëkk maanaam nga jóge ci région war a dem ci beneen région wala nga jóge ci benn département war a dem ci beneen département gaar nga war a dem mooy gaaru Thiès parce que kuy dugg avion aéroport nga jëm kuy dugg train gare ferroviaire nga jëm pourquoi yow oto booy voyager fu la fu oto fekk nga dugg dem fu la neex loolu mooy li nga xam ne mooy point de vulnérabilité ci transport boo xam ne dëppoowul d'abord ak yoon parce que yoon texte yi li ñuy wax loi d'orientation mooy transport inter interurbain mooy transport bi nga xam ne saa se fait de gare ak gare c'est vrai nag amon nañ ay faiblesse moy site yi ñi tuddé horaire nga xamné wa Matam dañuy dajalo bokk ben quartier né ñun suñu auto fi lay joggé horaire bi 6 h du matin la fi joggé wàcce ñu telle heure ñun ñëpp fi lañuy dajé pour yéege fi suñu auto dem Matam amna horaire yoy séju amna horaire Bignona am na horaire Casamance lool ay pratique liñ fi bayyi parce que ay communauté ñoo doon organiser pour def ko waye yoon daf koy tere nee nañ naam comme yoon da koy tere dañ koy dindi biñ ko dindi tay tay tay tay waaye nag nañu ko encadré ci période bi aussi donc encadrement boobu mooy gare yooyu nga xam horaire dañ leen autoriser leen exceptionnellement mettre leen sous la supervision d'une équipe bu leen donc ce qui fait que Dakar gare Beaux la gare principale la gare interurbaine principale ak gaaru Rufisque ñaari gar yooyu ñoo les gar officielles yeneen li ci des yëpp dañuy considérer ne c'est des gares privées ñenn yi dañ leen autorisé officiellement parce que dañuy gaar yoo xam ne c'est des gares formelles am les gar informelles yu ñu tuddee horaires ñooñu dañ leen di recenser def liste bi def circulaire wax leen nag à partir de dimanche nan la ñuy fonctionner defe naa ne loolu suñ ko defee d'abord fi nit ñi di jëlee oto yi ñu xam ko boo duggee si oto ñu xam ne dugg nga ci oto jóge nga ci Dakar yaa ngi dem Ziguinchor wala yaa ngi dem Sédhiou wala yaa ngi dem Kolda oto boobu am manifeste ña ca nekk ñu xam leen identifier leen ràññee leen ba nga xam ne bu jëyee amee dinañ ko xam waaye aussi bu ay information yoo xam ne ñoom dañ ko war a xam amee dinañ ko xam nañu bokkal oto bi bu information boo xam ne war na laaj ñu jël seeni matuwaay waree ñu am ko dinañ ko xam donc ce qui fait que vraiment yora une traçabilité yora aura aussi un partage de l'information y aussi de la responsabilité. alors euh, ci loolu gis nañu ne euh, xeexu mbas mi taxoon na ngeen génnee xaalis euh, maanaam pour jàppale ko ñi nga xam ne ñoom ñooy transporteurs yi koppar googu wax nañ ci lu bëree bëri foo leen ci toll ndax gars yi am na lu ñu mos walla mosaguñu dara. non koppar yi moom wax dëgg yàlla dañuy sant d'abord président aussi transmettre ko cant communauté bi nga xam ne wax dëgg yàlla gis na ne. Euh, son nañ ci mbas bi mu andi xaalis jox leen ko demat ba si yàgg ne xaalis boobu sax war nañ ko yok yok ci 3 milliards de francs CFA xaalis bi ngi nekkon ci 5 milliards 250 millions mu yokk ci 3 milliards muy 8 milliards 250 millions. euh commencé nañ ko joxe waye comme transport dafa am ñaari catégorie dafa am catégorie de personnes yo xam dañu organiser wu de manière formelle nek ay société ñu ràññee leen am compte bancaire am administration am lepp ba ci cité AFTU. ak Dakar dem dikk ñooñu nga xam ne dañu formaliser ñooñu moom jot nañ seen xaalis parce que xaalis bi moom mu ngi sukkunu compte de dépôt au trésor ñooñu jot nañ seen xaalis ba euh, xam naa ne waajalu reprise bi moom dina yomb si ñoom donc ñooñu jot nañ seen xaalis gare routière yi aussi am na ci ñu bari ñoo xam ne dañu am ay compte bancaire formaliser nañu ba seen association aussi reconnaître nañ leen ñooñu tamit commencé nañ jël seen numéro compte bancaire ak gouverneur yi nga xam ne ñoom ñooy superviser travail boobu pour que bu ñu amee compte bancaire rek ñu commencé leen a fay seen xaalis gaaru ceer yi loolu moom tamit day tëddee bor beneen bi nag nga xam ne wu ñu mooy opérateur yi nga xam dañu nekk ci interurbain amuñu benn cadre faîtière boo xam ne ni mun nañ jaar ci ñoom pour jox leen te ñu ci bari aussi informel la maanaam booy am sax sa tour lay nekk sa compte bancaire lay nekk te euh, xamuñu sax ñaata oto nga am ñooñu dañu créer benn comité au niveau de chaque région pour que comité boobu Liguey, ak service des transports sous la supervision du gouverneur pour ñu mën leen recenser région par région xam ñaata oto la am chaque opérateur li nga am si ay oto ñooñu bu ko defee ñu jël xool xaalis bi xayma ko ku nekk ñu jox la may rappelé ne ñooñu ñëpp président mu ngi leen jox 1 milliard 800 millions de francs CFA gars, yi président Moulin ngi leen jox 600 millions de francs CFA wax dëgg a jàpp naa ne loolu dina yombal bu baax a baax a baax seen reprise parce que am na ñu bari ñoo xam ne dañu amoon problème mu assurance pour fay seen assurance yi ñeneen ñi am problème mu moteur ñeneen ñi am problème mu pneu bu ñu jotee loolu jàpp naa ne dinañ mën a gën a waajal bu baax a baax a baax reprise yi man si man si liggéey li nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñoom. alors gis nañu ne euh, secteur bi donte ñu ngi ci mbas mi euh, jotoon na commencé am ay ay yëngu-yëngal euh, yëngu-yëngal yooyu ñu si mel ni ñoom Alsaan Ndoye ñoom Gora Xuma yëkkati woon nañu ay kàddu est-ce tey. Eh, dafay won ne jafé jafe dafa am wala jafé jafé amul non jafé jafé mbas bi mom fepp la indi jafé jafé transport aérien aéroport buñ ko tejé aéroport lu tout tout fukki société ñu ngi fay liggé yoo xam directement ci ci industrie aéronautique bi lañuy liggé nak waxuma la euh auto yi nga xam ne touristes yi la yeb waxuma la ñi nga xam dañuy jaay restauration waxuma la ñi nga xam dañuy jaay ci boutique yi fofu cosmétique ñepp am problème Euh, transport dafa am problème restauration am problème euh, mbuur gi nga jóge te dëkk fa nekk sali xam nga ne éco hôtel yi dañoo tëj parce que amatuñu benn benn ñooñu tamit ñu ngi nekk ci ay problème kon ko affaire bi ni ñu naan ku njëkk a yuuxu rek mooy ànd wax sa sago mais ñëpp sonn état bi ci boppam tey nga xam ne dafa génne mille milliards pour jox ko fonds Covid mais état bi ci boppam ay recettes am recette douanière dañuy baissé plus de 60 pour cent Euh, euh, fiscalité dafa baissé euh, droit yi nga xam ne entreprise dañ koy fay état dafa bese employé état ba léegi da leen di fay ñemewul dàq kenn ñemewul wàññi te sa xaalis ngi wàññi ko waaye terewul nga jëlaat sa xaalis bi ne damay dimbale askan bi damay dimbale entreprise yi nga xam ne dañu nekk ci ay difficulté donc loolu mooy wane ne lii moom ñëpp a ñëpp a ñëpp ñëpp ci laal donc nit nag boo nekkee ci secteur mu am yenn jafe-jafe yi jafe-jafe yenn yi nga xam ne kenn tegalu ko parce que ndogalu yàlla moo ñëw euh, te ñuy jéem a sàmm bakkanu doomu aadama yi loolu da nga war a ànd ak euh, dignité rek loolu moo fi nekk parce que man ministre des infrastructures ak des transports man maay gën a am métit bu transport dawul parce que man sama mission mooy dawal transport je le ministre de l'effectivité du transport donc bu bu arrêté man ci sama bopp dina am lu ma métti waaye dañ koy muñ du yàgg de luy dem la ñu ñu muñ ko xeex ko te it parce que message du président depuis le 11 nous xam nañ ne message boobu reprendre les activités économiques message reprendre les activités économiques bu dee ministre des transports wala nga nekk ci transport war reprendre les activités de transport parce que avons des activité économique et sociale sans sans le soutien du transport donc nous ñun ñëpp xamoon nañ ko moo dañ depuis très longtemps pour reprise du mën d'ailleurs nous allons reprendre le service technique le 2 juin huit passé parce que sur la base d'un plan de reprise de ko nous allons reprendre tout de suite euh, à partir de dimanche le transport interurbain parce que dafa nous nañ ko ba reprise rek donc ci crise duñ ko dis dañ koy fajee toog waxtaan guerre mondiale sax ci toog autour d'une table waxtaan la mujj te ñun nag àggaguñu guerre mondiale. Euh, déglu nañu euh, ku mel ni Alassane Ndoye mu nee na yow euh, clando ak Jakarta bokkul ci sa jargon nee na yow loolu nga xamle ndax da nga bëgg indi coppiteef carrément ci wàllu transport ci Sénégal. xamal ne le 27 mai bii passé président ci conseil des ministres. adopté nañu benn loi bu am solo buñ tuddé loi d'orientation et d'organisation des transports terrestres loi bobu da fay indi coppati yu ama am am solo d'abord ci transport gis nga né auto transport mën naa dem ba 40 ans 50 ans té kenn du ko changé wax nañu né loi bobu war na mëna indi nak limitation âge d'exploitation des véhicules loi bobu wax na né auto yi daw transport war nañ leen mëna fixer at ne pendant 10 ans pendant 15 ans pendant 20 ans question de sécurité routière loi Sénégal on tenir compte environnement Sénégal On tenir compte ci euh, euh, euh, énergie source d'énergie On tenir compte aussi du cadre de vie donc ça veut dire que danañu nekk ay oto yoo xam ne moteur yi ñu euh, euh, am ak euh, carburant bi ñuy utiliser ak caractéristique technique ak technologique yi ñuy am dafay nekk ay caractéristiques yu mucc ay loi boobu wax na ne pour loolu yëpp ñu mun ko def il faut ñu am fonds de développement des transports terrestres fonds boobu moo ñuy permettre ñu def politique de modernisation bi nga xam ne bëgg nañ ko ci matériel roulant bi nan lañ koy rajeunir ba nga xam ne Sénégal taxi pour mu daw fi dootul dépasser te 7 ans euh, Carapit voilà wala Carapit transport en commun dootul dépassé 15 ans 20 ans maximum camion, yi dootu ñu 25 ans loolu yëpp loi bi génn na ko te renouvellement parc moo koy Le renouvellement parc mais aussi renouveler gare routière gare routière dafa faut avoir le même niveau d'organisation même niveau de professionnalisation que gare ferroviaire que aéroport malheureusement sunu gare routière yi gis nga ni mu mel donc loolu yëpp ay ay ay ay yu am solo la def waxtaan secteur yi ba nga transport en commun ak dal confiance xam d'abord bañ koy jël service de qualité mais aussi tout le trajet dinañ xam trajet bu confortable trajet sécurisé ah, bo xamné ni euh, bu performant lolou lañu bëgg ci transport. ce cadre bu muju sante leen gërëm leen ñaan yalla rek euh, li fi nekk muy mbass bi euh, yàlla na ko fi yalla jëlé ci jamm genn ko ci aduna bi yëpp Sénégal nekkat fu mu nekkoon parce que fimu ñu fekk ñu nekk ci ay croissance bu am solo depuis 5 ans ñu nekk ci trajectoire de croissance de 6 tay mbass bi dina def suñu croissance bo moytul 2020 bi du dépasser 3 loolu nag dañuy ñaan yàlla mu gaaw fi génn ñëpp nekkaat si jàmm Sénégal di continuer di dem ci kanam.